jërë ngeen jëf euh, jaajëfal yu ba jërë ngeen jëf Yacine internet yi ak auditeurs yi jaa ngeen jëfati bienvenue ci seen journal des faits divers xalaas euh, ma ànd ceeg Momadou Mohamed Ndiaye ba tey ak euh, Passepartout Ndiaye maa ngi lay ziaraat. a Ababacar maa ngi lay delloo ziar gi bu baax a baax maa ngi am mbégte di ànd ak yow ci xalaas am mbégte également di ànd ak passe partout ci xalaas di nuyu waa Sénégal di leen sant di leen gërëm saa su nekk di gërëm jamono ji ñi nga xamante ne ji ñoo ngi ci tali bi nekk ci embouteillage yi di wéttali ko di déglu émission xalaas ku ci mën di nekk rek ñi ngi lay nuyu bu baax di la ñaanal journée jàmm di la di la di la sant bu baax a baax ñii xëy nañu dem toog ci bureau yi di ko xalaas ñii di soog a yeewu di déglu xalaas pour soog a liggéey ñii nekk ci oto yi di déglu di ko wéttali ko ba yegg fañ jëm ñoom la kenn kenn amul seen fay. dama am sama ñaari papa yoo xam ne dama leen a sonal ñu dëkk Ouest Foire ma sonal leen lool lool mais lu xew ci xalaas gi ci ngoon gi su may traversé foofu dañ may woo abaa li nga wax nii <laughs> li nga wax ne maa ngi leen nuyu bu baax paas yi paas Sadama paas yi maa ngi koy maa maa ngi koy nuyu bu baax ak pa añ ah, maa ngi leen di kontaanee bu baax a baax sama ñaari paa yi ñoo bokk grand place yàlla na seen jàmm yàgg passe partout. yow ñaata yoon ngay dégg. baat boobu. ci journée bi. xam nga nag man bu ma rombee nii boo ko waxee rek damay kii nii dégg mais bu ma doon wàññi mun ma wax ñaata laa koy dégg ah li nga wax ci rajo bi kay yaakaar naa ne boo ko doon compter. boo koy rek. Pass. moom ak Pape Cheikh. muy baax noonu. ñu ngi lay ñu ngi lay jaar bu baax abaa di nuyu l'homme fort l'homme fort de Ngabou de tous les temps di nuyu auditeurs ak internet jaar ñëpp. amiin di nuyu ñëpp di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci ñoom. daal lépp fa law. tawfeex. Ndiaye partenaire yi. comptoir commercial de plomberie du Sénégal la ñuy tàmbalee ñooñu ñooy waa CCPS boo bëggee dégg champion ci accessoire plomberie tuyauterie ay moto pomp demal seeti comptoir commercial de plomberie du Sénégal. Euh, matériel ay accessoires sanitaires également ñoo fi teg tànk fii ci réew mi ndax euh, li ñuy jaay qualité la garanti na te yomb na teg ci comptoir commercial de plomberie du Sénégal seen site web di www point ccps point sn www point ccps point sn boo fa duggee di nga am euh, preuve yu wóor ci li nga xamante ne ji moom la ñuy wax mi également am nañu ay magasin fu ne ci réew mi mm. lu jëm ci wàllu sanitaire lu jëm ci ay matériel salle de bain yi nga xamante ne ñoo ci mujjee génn ak marque yi yi doon leader ci réew mi boo demee ci seen showroom bi nekk ci VDN bi dend ak Goodred en face immeuble Hyundai Eh, di nga fa fekk yi nga xam ne moom la ñuy wax mais mën ngeen dugg ci site web bi wala ngeen woo leen ñoom waa comptoir commercial de plomberie du Sénégal ci 33 ngeen dem ci seen place bi nekk rue Valmy wala rue Floris wala bokk rue Talbiac eh, Optique Vision Plus Sénégal lunettes partout et pour tous di fàttali waa Sénégal ne waa Optique Vision Plus Sénégal nee nañu promotion bi nga xam ne ci la nekk ba léegi ñoo ngi ci ngir euh, mois de janvier bi yëpp internet yi ci boutique Optique Vision Plus Sénégal yëpp muy si Dakar di Mbour di fii fële ci Touba di Kër Mbay Fall Louga ak Saint-Louis ay wàññu yegg ba ci 40 euh, vision de près vision de loin progressif simple yi ay percé original ay lunettes photogré anti reflet yooyu yëpp ak ay monture de lunettes bu ngeen fa demee seen xol dina sedd ndax dañoo wàññi njëg yi bu baax a baax réduction bu yegg ba ci établissement waa Kër Serigne Touba Fall frère borom gàmm ñëwee ci la waa réew mi noppalu ci yu baree bari loolu sénégalais yee ko wax ndax yu baax yi nga xam ne indil nañu ko Sénégal yi ci gaam bi gaamu vite fait moo am frotté bu efficace bi baax ci yaram buy metti gaamu vite fait moo am cuuraay bant bi ay ci weñ ak yoo ak mbóot amul benn benn benn euh, conséquence boo xamante ne jii daal euh, boo ko boo koy noy dana la ko jural am déet ndax dañu ko testé ba mu wóor ñu indi ko mais également am nañu crème épilatoire ci jamonoy sedd bi moo xam pour sa tànk wala pour sa ay loxo savon king aloe vera wala anti acné ñoom ñoo ko fiyandi ñoom établissement waa kër Serigne Touba Fallé frère ba tey ci seen gaam bi boole nañu ci cuuraay pour kër. ma yem foofu. Mhm. bañ a wax ci aaw ak ñetti ak ñetteel. <laughs> cuuraay bu neex pour kër 77 555 11 11 wala 77 806 15 19 ñu leen di remercier bu baax a baax. jaajëf waay. ndax Ndiaye am na ñoo xam ne amuñu borom kër wala amuñu sax euh, benn soxna mais dañuy bëgg parfois di taal cuuraay te boo nee cuuraay pour aaw ak ñaareel la ñetteel da nga écarté ñoom ñëpp. dañoo waane. waaw waane képp war a dañoo bëgg seen bopp rek. ji. ñi nga xam ne amuñu soxna wala amuñu borom kër yor seen kër di fa kii taal cuuraay timis bàyyi ko. muy xanaa xamoo loolu day lambalaate. ma yaakaar ni dañuy kii dañuy. déet loolu da nga koy jàng ci boo dee góor amagoo jabar di def jëfi kuy am jabar da nga yéex a takk ngay jigéen amoo jëkkër dëkk ci def jëfi nit ku jigéen juy sëy di nga yéex a dégg alxayr. gàng tamit am eh? gàng. nga lan. ma yaakaar ne booy gàng da gàng lu baax. gàn nga lu baax. Eh, Ndiaye. <laughs> mun naa yaa ngi nii heure boo xëyee sol yore émir te taxulaa doon. ngay gàng mel ni. <laughs> Ndiaye mun naa poser benn question. doo gàng mel ni bi defar bi yooyu. mel ni ci cet la bokk ci silwiise la bokk. Mm-hmm. mais yéen ciy bëgg di boole. <laughs> dommage que mënu ma ko wax. Ndiaye j'ai une question. dama am benn question. maanaam góor gu amu jabar lan lay def loo xamante ne comme li am jabar di di def ba nga amagul jabar loo daan def te léegi ku am jabar di ko def. mais di ku mës ta am jabar. damay laaj da ngaa judd waale jabar. da nga judd rek sëy. non ah, kay la nga daan def. daan def rek. xam ko. la nga daan def la nga daan def rek dara. ah waaw ah, kon baax na jàppal ne kon duñ def dara. kon kay duñ def dara xanaa exceptionnellement rek sama genre ki mais bu dee noonu loolu mooy normal. yow yow loo daan def dara. Ah. <laughs> question <laughs> lan la Paas eh, da nga am Paas. da nga naan yii question yan lañu. yaa ngi dégg ah, ah. ñoo fóotal seen bopp. man maa posé sama question. ah ñu doo bàyyi Ndiaye tontu yow nga ñëw ruube ma jaxase ma ci wax ji. après noonu quoi doo ko piégé. Youssou Ndour nee na misaal bi man naa bañ a sori ku nekk sa bopp. doy na misaal. ba nga amagul jabar la nga daan def. moom boppam la doon waxal waxul sax ci débat bi ñu nekk. waaw d' <laughs> ah, man daal dama laa wax. tontu voilà ba nga amagul jabar daal ya nga daan def yooyu la. man ba ma am ko jabar daal Rahman laa ne ko Ndiaye. waaw ba tey baax na kon ba tey baax na. mais parce que yaa daan fóotal sa bopp. waaw. boo wàccee eh, kenn du tàngal ndox yaa koy tàngal sa bopp. waaw booy lekk kenn du ko tàngalal yaa koy tàngal sa bopp. waaw dafa bari. maanaam lépp loo xam ne soxna la koy defar yow. yaa koy defar sa bopp li ngay wax ne boo amee jabar doo ko def. doo ko defal sa bopp. waaw doo ko defal. Ndiaye dafa ne yow est-ce que waaw léegi waaw léegi dama lay ñaan débat bi da ko yóbbu wareef wala kàkkatar te ñun ñu jàll ci leneen ñun suñu temps bëriwul nga bëgg fee toog bëgg wax. bu dee am nga ala xalaas express kay ñu dem ci boo ñu amul moom ñu yokk ci xalaas yi. dama am xalaas goo xam ne moom a tere nelaw dem ci guddi Ndiaye. Ah. la première fois mu dal ma nag. Ah. mooy ne xew mbuur. gars yi toog guddi gis benn maire génnee ci armée yi ñu topp ko mu yor benn siwo ñu jàpp ko tëddi silo bi fekk mu def ci benn liir. buñ suuloo suuloon ci armée loolu nag question la nag mais liir bi ñaar loxo dañ koo dagg. Mhm. maire bi yore liir bi ak bidon essence te moom géej. la nag am na ci ay. kii yu bëri yu ci ñëw sama xel ci guddi mais nañ déglu ki nga xam te moom moo fekkee mbir yi ba pare. waaw Momadou Konte la Mbour Golfa. waaw dafa am benn maire bu ñu jàpp fii léegi léegi nii bu sulli benn benn liir mais liir bi dañoo dagg ñaar loxo yi quoi waaw mais su golf fii lañ ko jàppee quartier bu naan golf si terrain bi waaw police mu ngi fi sax mais dañ ne mënuñ koo laal une fois ça pour ñëw bare maire bi bu muy dugg si armère yi cimetière yi dafa am benn euh, xale bu góor bu jàkkaaroo moom place léegi kooku moo ko topp nag bi mu ko toppee nag bu golfa si ah, soo la ko dugal si soo ko dugal waaw après par la suite moom si la ko signalé waaw armère wu tefes la Mbour tefes en fait moom essence la yoroon quoi essence la yoroon mais géej la doon dem xam naa doon taal xale bi léegi dafa am benn benn benn benn kuréel bu nekk fii kuréel gi de waaw kuy saytu si wàllu sécurité waaw kuréel de golf léegi ñooñu léegi la grand bi wax alerte léegi après ñu ñu ñu ñu kii ko léegi si lañ wooyee police police mu ngi fi mais dañ ne mënagun koo laal tant que sappoor ñëwagul waaw léegi sappoor la ñuy xaar ni waaw suul bees la kañ suul bees la non jotun see xool loolu de mais xale bi moom amul amul amul amul amul ñaar loxo moom dañ koo dagg moom waaw dañ koo dagg waaw sappoor sax d'ailleurs sappoor mooy door a egsi nii waaw door a egsi nii mbuur golfa waaw lycée Demba Diop côté lycée Demba Diop waaw foofu noonu la lycée Demba Diop waaw mais sappoor ñëw sax dégg nga kii Aba. moom moom femme bi jàpp nañ ko. jàpp nañ ko waaw. li ñëpp yi laaj mooy ndax dafa dem ci armeel yi sullee fa néew bi. Hmm. am ndax dafa jëloon néew bi def ko ci siwo pour suuli ko ci armeel yi dem amul possibilité mu bëggoon a dem géej pour taal ko. Hmm. loolu la ndax sulli bi moom wóoragul kenn xanaa moom mu leeral ko. Hmm. laaj bi nag beneen bi sopp mooy ki mu rey noonu ba dugal ko ci siwo ba ñu fekk ko ci moom kan la ndax doomam la. ndax doomu jàmbur la. te du xale buy soog a juddu ab liir de. non non liir war na am ñaari at. su ma hmm. ci information yu ñu joxe. Hmm. man na sama question xam lan la. xam sama question lan la Mouhamed. Hmm. ana ñaari loxo yi. ana ñaari loxo yi. ñu dem booy. man bu doon am na laaj bu may laaj man pour la man man pourquoi lay laajte. maanaam lan mooy objectifu xaw ma da ko rey xaw ma da ko sulli xaw ma dafa dindi ñaar lan lan mooy maanaam lan la ci wut. làq na lu bari. mais nag parce que. loolu mooy njëriñu enquête. Mhm. bu ñu demee fii ak fan. ba takk der yi jàkkaarloog moom. Mhm. dana la ci version bu leer. ñu njaay daraay àdduna daraay àdduna dafa dul jaar waxuma nga rey nit de mais nga rey xale jël ay loxoom di ko dagg di ko taal ak di ko jéem a daraay àdduna da koo jarul dara ak lu mën a taxaw ci àdduna dara jaru ko dara maanaam nit ku wér pour man ku wér ànd ak xelam am na hmm. loo xam ne mënoo ko parce que nii nii nii yaa ngi rey nit ñi nit ñi ci page bi kenn waxatul kenn kenn fekkewu ko hmm. dañ ko dégg rek hmm. waxuma la ak yow mi nekk ci acte bi di ko def ak am na ñoo xam ne yow ki nga ko def soit sa doom la baa muy doomi jàmm ñoo xam ne ko nit koo xam la mu dib xale bu ndaw c'est-à-dire une surtout moomin une personne sans défense. ku war a xiif nga wutal ko lu mu lekk wala mu nga fekk ko ci mbedd mu bañ sol yére nga wutal ko ay yére koo war a protéger moo tax man kenn xamul ban dëkk la nekk. doy na waar de fuñ jëm feneen. beneen bu doy waar encore. mu mhm. ngi xewee fële ca boori ko démb tamit ñi ay baykat lañu xam nga bu ñuy seen thème day am moto pompe. Mhm. moto pompe yi essence lañ koy alimenter quoi. ñun baykat yi nekk ci àll bi. waaw sàcc yaa ñuy bëgg a rey. sàcc tool boo fa am def fa solaire boo leen wanee ginnaaw ñu wekki ko yóbbu. ah tool boo fa am ci àll bi. def fa solaire parce xam nga courant bi du fa yegg. Ah. te léeg-léeg ngir ci kii irrigation yooyu da ngay soxla boo gasee teen war ko mën a installer ba ndox mi di génn. Mhm. solaire koy alimenter mais solaire boo fa def boo leen wanee ginnaaw ñu wekk ko yóbbu. yàlla yi loolu bokk na ci seen jafe-jafe jamono ji ku ñëw jël solaire bu nekkul ci paquet di la ko jaay war nga xam da koo sàcc. wax dëgg. ku ñëw jël solaire boo xamante ne ji c'est-à-dire bi rek la yor ñëw ne la dama la koy jaay. Hmm. ana facture ma ne amul facture boo ko jëndee xamale jënd nga alalu sàcc. Hmm. yeboon na Samba ka teel la wax ak ay avocat am de. ah teel a jug tam te mu ne prison ñu koy yi tam ñu koy jiiñ. Samba ma Samba Ka mi nekkoon ah, ci rang waaw na teel a jug ay avocat um teel leen wax ñu jël def xasam te mu ne prison yii ñu koy jiiñ naan ay moom laak yooyu. waaw mais lu mu ci deful tamit te amul lu amul preuve mun ñu koo yan. Hmm. c'est pas possible. teel a jug de Sénégal bu la xasee xam ci dara. leneen lu boo fa ah, nekkee boo fa nekkul yëpp dañ naan yow la. <laughs> lu amul preuve. damay wax rek de. mais euh, foofu tamit bëggoon naa fa lancer benn appel euh, Aba nit ñi nañ bàyyi bu benn ni defee benn affaire ñu bëgg koo globaliser. ci ay fameek ay xeet. ci ay fameek xeet waaw nañ bàyyi loolu. loolu rafetul. benn nit mën naa sikk nga bëgg si kilo nga bëgg si kilo xeet ga yëpp. loolu mënut a nekk ah nañ bàyyi loolu waaye. du l'importance nit ku nekk. foo mën di bokk. da xam ne ambassadeur nga ci foofa. Mhm. yow mi boo génnee fii. Mhm. foo taxaw taxawaayu Futurs Médias nga fay taxaw. tigi am déet. dëgg gu wér. ab Nigérian bu ñëwee ci réew mi. Mm-hmm. ku ko xool Nigéria ngay gis ci moom. Mm-hmm. Mm-hmm. donc moo tax fu ñu mën di taxaw na nañuy nañuy jàpp ne du ñun suñu jëmm bopp rek a taxaw. mu lay taxawal mais fi ñu bokk. li ñu gëm. ki ñu doon ñi ñu bokkal ñëpp la ñuy taxawee. dégg naa dëgg ñu doxal. xalaas moom ngeen ko yàq ba pare maa ngi woon ci baykat bi. da nii rek. <laughs> yàq ngeen ko non xalaas moom yàq ngeen ko pare moom. xanaa li xew eh, mbuur ah non non non loolu kay loolu ah, kay abaa moom kenn xamul nuñ koy. ñaar mais demal ci demal sama mbokk yi. baykat ñoom aussi. Mhm. bidon essence ba moo daan ci biir teen ba. benn booy bu am 17 ans dugg ci teen pour génnee ko ba kii ko maanaam mu noyyi essence bi. Mhm. affaire jàpp ko ba mu xam ci teen bi. Hmm. turandoom di papaam bu ndaw dugg di ko sauver moom it essence ba jàpp ko moom ñoom ñaar ñëpp ñu faat ci biir teen ba. fan la xewe région bu Louga fi ñuy wax lew na wax na ma tur village mais dama ko xawul jàpp tuuti. ñu déglu déglu. waaw ah, affaire bu doy waar la affaire bu yéeme la sax parce que léegi moom dafa xaw a yéeme lool benn xale bu am 17 ans la donc benn bidon essence moo wadd ci biir teen bi donc xale bi dugg ci biir teen bi pour euh, génn bidon bi mais dafa dugg rek xam léegi am ko dugg pour génne ko moom tam mu xamaale ñoom ñaar ñëpp ñu faatu ci biir teen bi ah, sappoor léegi la fi ba sax di leen yóbbu Louga. waaw dëkk bi mu ngi tudd euh, Boundoukhoula Boundoukhoula mu ngi bokk ci région de Louga ah. ci région de la bokk donc euh, ci commune bu tudd Léona foofu la bokk xam nga ñoom ay béykat lañu donc dañu yor ay moto pompe yo xamante ne moom la ñu arrosé seen tool yi donc essence la ñu koy euh, alimenté benn bidon essence nag moo rëcc bu wadda ci biir teen bi léegi xale bu góor moo dugg ci biir pour génn bidon essence mais dafa dugg xam naa essence moo ko dugg quoi léegi mu xam quoi léegi ki nekk loon kooku tamit dugg pour sauver ko pour génn ko moom tam mu xamaale ci biir teen bi ñoom ñaar ñëpp ñu mujj ñàkk seen bakkan dégg nga de li tamit dara gënu koo metti muy beneen problème waaw. xam doon jéem a sauver turandoom la. mais li Abba doon jooy fee rek moo am fii. Hmm. xale bi nga war a protéger. Hmm. waroo koo def lu koy sànq. Ah. la moo tax ñu bàyyi xale bi di dugg ci teen bi pour génne butéelu essence bi. est que bàyyi woon nañ ko xel sax. ah déet jëlul ci coobare boppam nag dugg bañ ko xam nga teen ni mel. Hmm. pour nga dugg fa daj la cay yoor. waaw ah. ah. waaw doone ma moo yor boppam. loolu aussi c'est vrai. wala woon def loolu. mooy hmm, butéelu essence nag saa waay dama ne la bokkuma butéelu mais barilu essence sax jarul bakkan. Hmm. bu doon mbànd mi moo wadd ci teen bi sax. Hmm. jarul bakkanu doomu aadama di des ci teen bi. te essence boobu war naa fort de. ñaar essence dafa dafa fort de. nga xam essence bu tuuroo ñaare après xet gi day naaw. ak teen ni mu ni mu mel. Ah, aussi tamit day am yu bëri yoo xam doo koy maîtriser xëy na. ñoom ñu ko dund ñoo la ko mën a wax daal. village yi mi ngi tudd Bundu Bundu Bundu Xula waaw Bundu Xula mi ngi nekk commune bu Léona na lu ko Louga la nekk. Hmm. xalaas tey moom saa dafa summi sama yaram bi yëpp. ñu dem. est-ce que duñu jéem a changer kii tamit dugg dugg ci beneen kii. ay ca bisimilah. waa ji Icotaf la dugg. Ndiaye. Hmm. Tira dafa benn borom restaurant. Icotaf yaa ngi wax zone bu neex. pikin ah. Pikine. Ah. laa ilaaha illallaah Pikine nag dama fa am jamono. ndax ah, da ngaa fàtte ne oxygène laa nekkoon. wax nga dëgg. tali bu mag. marché Zinc. marché Savanel. rue 10 rue 10. Icotaf. Texaco Lobat Fall. Texaco. Pikine neex na de. nuyu waa Pikine yëpp. nga ne luñ ko def. ñëw di ko proposé diwlin. waxaale ak moom. encaissé ko ni ko boole maak benn xale ñu aar ma jox ko dëru ndax oto baa ngi fa la gaare kooku boole ko ñaari nit ñu dugg ci taxi bi taxi bi avancé cent mètres mu ne booy wàcc na xaar ma ñëw dem yoonam. yóbbu xaalis ba. fes te joxu leen dëwlin. dara. <laughs> ñu déglu déglu bande son bi. waa ji daal daf maa fekk ma sama restaurant ma togg añ bay pare ba commencé di jaay wetu Seydou Taal bi Ecotaaf bi bi ma ñëwee mu daal may fekk ma ma nekk ci sama activité plein travail mu ne ma soxna si man ne dama la yàkkamte dama la woon dañu am ay diwlin yu ñuy jaay mais borom restaurant yi lañ koy jaay dañu mel ni yéen lañ soxla ndax bu ñu la jaayee boo fayee ñaari vin yi ñu lebal ñetti vin bu ko defee nga fay ko euh, ay tranche tranche ma ne ko bu boobaa man un ma fay leen ko du ma weer bi li des weer bi ma fay leen ko du yàgg mu daal ne ma looloo baax sax ma ne ko man ma fii njëgu ko man sama a pressing dafa lu gaaw di ma profité boobu fekk man maa ngi war a jaay waa ji vingt cinq plat kooku tamit ni ma xaar dama dem élève élève yi war a añ si ma boole laa kenn mu sa fekk mu ànd ak moom àndeek moom dem ci taxi bi léegi ñu ne ko boo demee na la waaji jox cinq butéel diwlin nga andi ko à trois heures ñu dugalal ko beneen quinze mille fekk euh, vingt huit mille vingt vingt vingt trois mille lañ ko jox euh, avance ah waaw ñaari biteel yi mu ne vingt neuf mille vingt neuf mille desal nañ ko quinze mille léegi mu ne fii ak trois heures ngeen dugalal ma quinze mille yi jël sama numéro téléphone jël téléphone am ak ni ma enregistré sama numéro instant yi dañoo nekk si yàkkamte man ko yéen fan ay borom restaurant yu bëri laa laa laay jëflanteel instant yi dama doon bu ma lay laaj soo d'accord après ma daal ñëw kii la mu nga andi avance bi man ko léegi il faut am ko àndal sembeen àndal ak moom sembeen di ma non xaaral ma dem jëlal la ñaari élève dugg ci sa unité bi benn élève bu mag ànd ak moom moom naa ànd ak élève bi ñun ko boo demee na la ni ko booy wàccal xaar ma ma ñëw booy bi wàccee taxaw xaar ko booy bi taxaw taxaw taxaw xam naa xaar ba sonn mu dem mu mel ni ku ñu mbéj mu daal ne ki ngeen ma booleel dem na de xool naa ko fii yëpp gisuma dañ naa ko xaar naa wàcc xaar ko ñun ko yow ñu jox ko suñu xaalis mu war ñu moo indi diwlin xamuñu ko xamaanuñu ko nga mu bàyyi la nga dem te booy bi du xale de magum jëmm la booy bi war naa am vingt ans la nii am taxawaay ñuul sol benn ji la ko yor nag jour boobu laa ma la xàmmee yaa nekkoon fële xam naa la xam sa doom yi kii kan moo ko jur sa doom yi sax di sama sët bi ma ne ko sama doom bi xamuloo ko dégg nga waaw naa ma xam naa la bu baax yëf dóorkatu waar nga sama yaay nga fee nga nekkoon ma laa xàmmee ñu mel ni yéen la ñuy wër daal bu ñëwee ne la damay jaay tant indiwul li muy jaay bu man ci d'accord parce que man wóoluwuma ko sax mais xam nga lan moo gën a kii xale bi mu ne nañ ko boole xale bi te bu mu nekk xale na nekk mag loolu moo dalal sama xel ma ah xëy na liggéeykat la mais man caaxaan yóbbuwul sama xaalis parce que damay jaay nii ci gémmiñ kese nga toog di liggéey sa xaalis ko jox nit ana yow ana man mais da boole leen naag nit avis confiance daal waa ji moom la triankat la dóorkat la dégg nga ko abaa ah loolu def hmm, léegi nag ñi ñi nekk ci réew mi rawatina ci zone boobu na parce que tyrans yi bu ñu duggee ci benn zone dañ fay def hmm. maximum de victimes waaw soo génn dem feneen hmm. mais comme moom yàlla def na mu am lu ko du mu dund teel a dem ci rajo yi bon teel a dem ci rajo bi sax laay wax yëgle def na li ko war ñeneen ñi ku ko dégg na ko jottali sa morom. Hmm. ku leen ñëw dendoo waxi dawli nag waxi ki muy boutique muy restaurant muy lu mu ci mën di doon bu leen gis ne lim ñu koy jaay yomb na rek ba tax ngeen sóobu ci nan di dawlin tekk ngeen ubbi butéel bi ba xam ne lii butéelu dawlin la. Hmm. ngeen soog a fay bu ngeen defee. non pourquoi pas sax nga am temps mën ci togg benn palaa ba noppi togg ceebu yàpp wala ceebu dara. xool ba xam diw gi diw googu la <laughs> loolu yow jaaykat daa yomb kat nag jaay boo may jaay lu yomb da may may temps de loolu jaaykat dañ ko nangu temps nga may may de <laughs> damay damay àbb àbb àbb waxu ndooy baan ba rek de marchandise xaalis a koy génnee waaw loolu dem na moom jox ma sama xaalis ma ma indi la marchandise bi te xamoo ko xamul mosoo koo gis boole maa xale dëgg la de tey buy waaj bu demee tey bay waaj jeex hmm. dafa am laaj bu ma leen bëgg laaj dafa mel ni xalaas bi sax mu ngi waaj jeex boo bëgg laaj ñaan bu ngeen bëgg laaj yéen ak auditeurs yeeg. internet yeeg Yacine ak Aliou Ba ak ñëpp ñuy déglu ñëpp. waaw. ñaar ñu am problème. ba dem tribunal. seen sëy ñu am problème bañ dem tribunal. sëy bi ki koy régler wala ki tas seen sëy. mës ngeen toog ba xalaat kooku sëyam ci biir këram. man dama foog ni kooku warul am problème ci sëyam ci biir këram de xaw ma juge la xaw ma procureur la xaw ma kan mooy tas sëy <laughs> juge la mais man démb dama ci am cas de conscience damaa toog xalaat ni kooku maanaam moom biir këram est-ce que moom mës naa am soxna daal di koy wàcc est-ce que juge mës naa fase wala est-ce que mës naa am problème juge ba ba parents yi ñëw arrangé man est-ce que <laughs> xaw ma nag ndax man fi ma nekk ngeen nekk xam parce que man xam naa dama nit ku wér mais man loolu dama ko xalaat démb ba sonn. loolu dafa bëri ci couche yi dafa am ci couche bëri mu nekk. gis nga wéykat yi par exemple wéykat yi. Mhm. ñu la dàq wéy nu ñuy seeyee. ñu ci bëri. ñu ci bëri tas kenn seeyu ci wala tas nañ tas nañ ñetti yoon. léeg-léeg Sénégal di football nga gis ay spécialiste toog ci télé yi di commenter match bi. te mosu ñoo nekk sax mosu ñu toj fenn. yan <laughs> yan laa ñu bindee noonu Aba ah nañ ko nangu rek. yow léegi xoolal ndax ñu ñëpp nañ am problème wala ñu am problème. problème la. naturellement rek. ñoo ko ëppale mais. da ngay toog fi di rek problème. xool fi nekk juge ba bañ ko teg président lañ koy wooye fi mu nekk man. plus grave léeg nga daal ci juge boo xam ne célibataire la. <laughs> bu takkul waaw baa bu takkoon ba tekki. ne mooy arrangé bi. <laughs> yàlla ñu bind mais xam nga ñoom li def ci texte lañ koy teg. pas parce que polygame la monogame la célibataire la mi ngi ci problème mën naa bàyyi ñool ñool yu ne ñoolu këram. ñëw toog jëkkër ak jabar di la jënd seen i ñool ñool parce que li ñuy def ci professionnalisme la seen corps dafa am ay textes yu ko encadré wu wuñu seen waxi bopp luñ bind teg fii la ñuy jëfee. mais Ndiaye li nga mën a arrangé ci tribunal bi. waaw bu demee ci kër ga génneel teg sa nga teg soxna si bu defee naka su génneel texte yi teg ko ni ko teg sàngam ak sàngam nee na man en tant que juge boo defee lii man la ba wala ah, ah mais quand texte yi nga mën a. abba appliqué ci tribunal bi mënoo ko. abba abba génn ci juge yi. ah man sama kàddu. <laughs> demal au présidence. waaw day ko fi de.